yaa xayra day salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen rafetlu ànd bi ngeen di ànd ñun di leen wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi ci fii ci Touba Mbacké xibaar yi nag euh, te ji dañ koy door rek ajjuma ji nga xam ne moo njëkk ci weeru koor gi di 1440 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir bàyyi ko woon na Daaru Minaan ñëw fi nga xam ne moo di ci grande mosquée bu Touba ngir julli ajjuma gi nga xam ne moo njëkk ci weeru koor gi mu nekk euh, julli ajjuma goo xamante ni taalibe yu bëree bëri teewee nañ ko waaye ginnaaw euh, julli gi nag ki nga xam ne moo di sëriñ bi ñëwaat na fi nga xam ne moo di ci résidence Xaadimu Rasuul fi nga xam ne fi lay dalalee yenn kilifa yi ci diiru weeru koor gi waaye ginnaaw takkusaan gi mu ñëw ci salle bi nga xam ne fi la ñu amalee njàng xasida gi itam koy teewee ànd ko kilifa yu takkoo takku ci njàng xasida nga xam ne nii kuréel yi Hizbut yi ñoom ñoo koy amal ginnaaw bi ñaane nag ci la sëriñ bi daal di delluwaat ci biir. ba léegi mbokk yi bokk na ci xibaar yi soxna maam Issa Mbacke ahlu café fii ci résidence Khadim Rasoul yàgg na lool muy taxawoo li nga xam ne moo di ndogu yi ngir mboolem taalibe yi nga xam ne dañ fi ñëw bu ndogu jotoo euh, ngir ñu mën a amal ndogu yu mucc ayib loole nag euh, ginnaaw bi mu ci amee ndigalu kilifa yi mu ngi koy taxawu saa su ne waaye di ci dépensé ay millions yu takku ci diirub weeru koor gi liggéey bu ni mel nag mu ci ànd ak mbégte waaye euh, taxawu ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi waaye di ci liggéeyal euh, maamam ju tedd ja di Cheikhul Khadim ñu ànd teelu soxna maam Issa Mbacke ahlu café ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci moom ci bërëb bi nga xam ne fa lañ ko fekk ci résidence Khadim Rasoul ñuy taxawoo li nga xam ne moo di yi. suñ fàllu ndogu yi ñun ko tàmbalee def passé na daaw. ñun ay ata ata ngi ñu nekk ci ëtt bi <coughs> di fi def ndogu yi di ko fi amal di ko amal ci yokk jumaa di ko amal ci kër Sëriñ Touba gële di dundal ëtti Sëriñ Touba yi ñun rek ñoo fi daan nekk di ko def waaye soo dee def lu baax nag li ñuy wax naan Sëriñ Touba soo ko dee liggéeyee rek da lay téyel coono ba bàyyee la bànneex ba biñ ko dee def di ko def di ko def ba Sëriñ Muntaxa nekk Sëriñ Touba moom it mu ñëw ne day ndogo fii ci sëñ bi dundal kër gi la gën a dooleel ndogo yi nag boole ñoo ak Hizbut Sëriñ Atou Diagne def ci loxoom bu baax a baax a baax waaw def ci addee ju baax a baax waa Hizbut def ci waa fédération Ahlou Café def ci mu doon ndogo yu dëgër dëgër yu am doole yoo xam ne fii ku fi teew xam nga ne ay millions lañ fi financé ku fi teew rek xam di nga xam ne fi ay million lañ fi financé def ko addee Serigne Touba ndax lu lu mat 3000 personnes ñetti junni ni dañ fiy ndogoo bis bu set diiru weeru koor gi yëpp ba weeru koor gi jeex ak ndogu yi ñuy jël di ko yóbbu ci maa yi ñuy yóbbu ko Serigne Touba yëpp loolu moo waral lii ndog yi suñ mu taxa moo ñu dooleel ba mu egsi fii ñu egsi xam nga li liggéey bu ndaw daanaka bu koor gi jubee lu mat ñaari weer dinañ ko def ay réunion defar def ay commission di ko waajal commission bi ñooy def lii ñi ñooy segg kafe gi ñi ñooy lal napp ñi ñooy laal li ñi ñooy bale ak hygiène bi ñu ko yor ñi ñooy le ndox ñi ñoo ne ci ngato yi ñi ñoo ne ci poisson ay commission lañ ko def ak ñi fóot ak bale loolu noonu lañ ko organisé avant koor gi ñëw nga xam dañuy ñëw rek bu saa buñ xëyee rek buñ yeewoo kenn ku ne commission bu ne xam na la mu war a def da ciy daal di jubale waaye daanaka nag ci la ñuy yend ba ngoon ba heure dog 6 heures demie la yëpp di pare ñu daal di ubbi bunt yi nit ñi daal di ñëw ndog buñ ndogoo ba pare tamit commission yi nga war a xam ñoo war a débranché dañuy daal di dugg si ñu war a laal li laal li bagage yi ñi nettoyé nettoyé ñi raxas bagage yi raxas ñu defar kër gi nettoyé waat ko ba mu set ñu door a dem dallu ji ba suba ak jàmm ñu xëy si waat daanaka buñ xëyee suñ kër neuf heures minuit la ñuy bàyyi ko waat fi delluwaat ci daara ji dallu lépp lu doomu aadama soxla boo fi xasee dugg rek fa nga nekk lañ lay fekk jox la ko loo commandé danañ la ko indi waaw ñi bëgg a ndogoo café dañuy ndogoo café ñi bëgg a ndogoo attaay ñi bëgg a ndogoo meew lépp loo xam ne nit soxla na ko xeeti naan yi xeeti collation yi fruits ay neem ay ginaar ay miswi lépp loo xam dina ko soxla rek soo ko boo dikkee boo ko soxlaa dinañ la fekk fa nga nekk jox la ko ci joxe nu yar ak teggeen teg ko ci njàngalem Serigne tuba séparé góor ñi ak jigéen ñi. loolee kàddu yooyu soxna maam Issa Mbacke la woon ci ndog yi nga xam ne ñu ngi koy taxawu fii ci résidence Khady Rasoul ci mbooleem jullit yi ak taalibe yi nga xam ne dañ fiy ñëw di fi ndogoo si. ba léegi ci xibaar yi fii ci Touba Mbacke benn zone industrielle boo xam ne bëgg nañ ko fay taxawal muy zone industrielle boo xam ne ci jamonoy Serigne Saliou Mbacke la woon ba léegi ndax moo joxe terrain bi nga xam ne moom lañ ko moom lañ fa war a taxawal mu nekk ci diggante euh, tuba ak Ngaabu ci deux yi zone industrielle boobu nag euh, ñu ngi ciy def ay jéego ndax euh, kilifa yi demoon nañ fa ngir lancer li nga xam ne moom moo di travaux yi ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir teewoon na ko ànd koog Serigne Ahmadou Badawi yi nga xam ne moom lañ teg liggéey bi ci loxoom ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Abdoul Ahad kilifa yooyu yëpp ñu amal fa waxtaan yu am solo waaye bokk na ci Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu jëm ci zone industrielle bi ak taxawaay bi nga xam ne war nañ cee am ci bërëb bu sell bi di Touba ñu andi ay kàddoom. ci zone industrielle bi koo xam ne yaa ngi xalaat da nga xam te sant bu baax xalaatu suñu sànni ndax adduna si laaj na ko dëkk bi laaj na ko ndax dëkk bi boo koy xool commerce rek a te commerce lu tax am réew yokku lu tax ab dëkk avancé. te ñu dëkk ci dëkk bi te amuñu liggéey itam bari na bu ñu xëyee dañu toog rek amuñu liggéey amuñu dëkk loolu nag boo delloo ci message bi jàng Sëriñ Tuubaa wax na ne bokk na ci yàq ak société ak askan mooy aw xeet yoo xam ne dañoo yàccaaral fasta seen loxo liggéey kon nag fii ku ne xam na ne ay jàmbar la waaye nit bu fekkente ne xëy na te gisul lu mu teg loxoom wala fu mu daane ji barem wala fu mu xëy di jëriñu kon tombé nga naan kon bi bokk na ci li nga xam ne da nga ci dimbali ñëpp ba nga xam ne doole yi nga xam ne fi toll nii pour dox ci dëkk bi di xool da xam ne ñu ci ñàkk bi nag ñu xam ne lii liggéey la boo xam ne Touba moo ñaareelu dëkk bi gën loo def nañ ko Dakar rek mooy dëkk bi ci war fi ne xam ne lu fi am ci ay usine ak liggéeyukaay taalibe yi seenu jàmbaar seenu dogu ak seen pastéef seenu ñeewu coono moo tax mu àgg kon lii nga xam ne nag yéen yéen leen ci war a jàppale war ngeen a ba taxaw leen ci seen kéemtalaay kattan ngeen xam ne boo ko defee Touba Sénégal ngeen ko defal te Touba fi def rek war ngeen ko def ngir yaar war ngeen ko def ngir dëkku sëriñ bi wala yaakaar ne lépp di Sénégal ak lu bari ci bitim réew dafay aju comme loolu war na ak saayir kon loolu waris na ko kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir yooyu ci euh, zone industrielle bi nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal ci Touba mooy tëj xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi ci bërëb bu sell bi di Touba sant leen gërëm leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar yoo xam ne day bàyyeekoo fii ci dëkk bi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë jëf.